bonsoir à tous et bienvenue ci seen actu du jour dañ koy doxee ak Alioune mi doon amal conférence de presse fële ca Doha lam fa xam ne nag ci kanamu journaliste yi bokk na ci suba incha allah la ñu nar a amal match Sénégal contre Équateur mardi 29 euh, novembre euh, bu 15h jotee euh, GMT fële ca Doha moom nag lim mu fa xamle bokk na ci Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni bëgguñu defet te dina dina def le tout ngir ñu mën a am victoire face ak Équateur ngir ñu mën a qualifier huitième de finale euh, dañuy dem ci euh, député bii di Farba Ngom di député euh, parlementaire moom nag Farba wax na ak député opposition bi xam na ni que ni dañu immature teg ci amuñu benn expérience ginnaaw bi nga xamante ni installation quatorzième législature yi ñoom ñoo fa nekkoon di xëccu ay micro te it yéeg si table di tëbëka dal di arraché ay isoloir moom nag Farba xam la ni que ni mën nañu ba mën nañu ñàkk bokk euh, opinion waaye nag lépp ñu teg ko ci dignité ak ci personnalité demee ak fulla ak fayda ba tey moom euh, député bi di Farba Ngom wax na ak ministre bi di Mansour Faye moom nag euh, mi ngi koy remercier tey di nangu expérience am ba tey di ko rassurer ci vote budget yi dañuy wax ci Abdoulaye Sow moom Abdoulaye Sow di premier président vice-président des Lions de la Fédération sénégalaise de football moom Abdoulaye Sow nag mi ngi ñaax gaynde sénégalais yi euh, ñi nar a amal suba euh, match contre Équateur moom Abdoulaye Sow nag mu ngi leen di ñax di leen xamal ni suba dañoo war a am victoire ci kaw kii di Équateur ngir ñu mën a garder seen titre champion d'Afrique moom Abdoulaye Sow ba tey mi ngi leen di wax ne euh, ginnaaw bi nga xamante ni euh, am nañ defet ci kaw Pays-Bas dafa gis ay joueurs yu taxaw ak ay staff bu taxaw ngir euh, loole bañ leen mën a dalaat ba tey moom Abdoulaye Sow mi ngi ñaax supporters yi tamit Sénégal ñu gën a mën a taxaw ngir mën a soutenir suñu gaynde yi comme niñ ko amalee woon ci Coupe d'Afrique ba dañuy wax ci kii di El moom mi fi nekkoon international sénégalais génération 2002 moom Abdoulaye. moom El Hadj nag euh, moom mi ngi euh, lancé message bu fort ñii di gaynde Sénégal yi di leen motiver ngir ñu mën a am euh, victoire suba face ak Équateur bu 15h jotee ca Doha moom El Hadj nag mi ngi leen di ñaax bu baax ngir ñu mën a am victoire te it di ngir mën a rendre hommage kii di Pape Bouba Diop Bruno Metsu ak Jules François Bocandé ndax bu ñu ci fàttali 29 novembre 2020 la kii di Pape ba Diop génnoon àdduna def na deux ans ci ren. donc euh, moom mi ngi ñaax gaynde yi ngir ñu mën a gën a góorlu def la tout ngir mën a ngir mën a am victoire ci kaw kii di Équateur ngir ñu mën a rendre hommage euh, rendre fier ñi nga xamante ni mooy Pape Bouba Diop euh, Jules François Bocandé ak Bruno Metsu ñi nga xamante ni dañoo loon Sénégal fii nii gox di di ñafe ngir Sénégal def lépp ay jaloore yu mag ngir équipe bi mën a jëm ci kanam dañ koy jeexalee ak Dieyla ak Samba Peuzzi mi nga xamante ni dañu ñu fas yéene euh, euh, génnee benn son euh, di ko nag koo dippee gaynde yi la ak Samba Peuzzi nag ñi ngi waaja lu rëy lu foox ngir gaynde Sénégal yi son bu nar a neex ngir dippee ko gaynde Sénégal yi te it encouragé leen ngir ñu mën a jël coupe du monde 2022